Méticulture dialog national bi ñu tambali démb ay waxtaan pëccëxoo moo ci mujj sabab li modi kon ndaje ma démb xuloo ko werante moo tas ba tax fama ibrahima ibrahim ma makoy jité woote wat ëlëk ci ya alxames ji ya intersyndical liggéey kat collectivité locale yi lok tas katu xibaari leen suba ka tay li ñu fa doon wax modi kon préavis de grève bi nu dugaloon ak way ba ak yenen plan yi d'action yo xam si euh, ñoo ngi koy euh, wajal euh, marayeur yi nekk ci réewum sénégal tambali nan kon ab grève bu ñatti fan tay ji àllarba ji ndax nee nañ la leen métti moo di kon la ñuy fay bu leen di yabal ca marché central au poisson ba euh, koppar yooyee dafa daal di cher ba jéggi dayo reportage bi tey tontine la ñuy waxtaane nekk mbir moo xam ne si jigéen ñi ñoo koy def te mu ëppee ca banlieue bu ndakaaru li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagle laa ak cosaan mu gën caa livre bu bees bu nu fesal ni ki démb ca Masaalikul Jinaan duppee ko Bamba xam bëgg tey wax kon ci jaara jaar-jaar yi si Ahmad Bamba Xaadimu Rasul dinan waxtaan itam ci bile jotaayu xibaar waykat bile di Habib ñu ko daan woowee ci ay jamono ay kon numéro 2 ak lu bees li mu génnee nataal bi gan gi ak yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy buural midi culture ñu ñaanalante Kader Lo Abdoul Xaadir moo nekk ci machine bi. agriculture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal maam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel na leen ko waxee ca bopp ba rek lay duggee ak ci yaatal gi mu di kon li nu duppee dialogue national te Famara Ibrahima Sagna di ko jiite ni ki démb nag lañ doon amal waxtaan wu njëkk wi waaye nag seetlu gi moo di dafa am ay weranteeg pëccëxoo gu am ca seen biir ba tax kon moom mi la di ah, jiite ah, bi lépp comité de pilotage di Famara Ibrahima Sagna daa mujjee dàq ndaje ma ba ëllëg ci alxames ji Aminata Ba ñu tollu woon ci juróom-ñetti fukk ak juróom-benn membre ci comité de pilotage bu dialogue national Famara Ibrahima Sagna mi jiite bi la dialogue yokk ci ñeent fukki membre ñu toll léegi téeméer ak ñaar fukk ak benn membre loolu nag jur coow démb bu ñu doon amal ubbite dialogue bi diggante Famara Ibrahima Sagna ak ñiy fare ci kujje gi ku ci mel ni Mokhtar Souran di coordinateur front de résistance nationale Babacar Gaye ànd suqali Omar Sarr ak ñeneen dina xarlu lu tax waxtaane wu ñu bile dogal ñu fàttali sax décret 2019 22 79 bu ñu xaatimoon buy firnde ni membre yi yëpp ñoo war a jël benn décision ginnaaw lii Famara Ibrahima Sagna di defal ay naataangoom ne dara làqawul ci ginnaaw li mu def muy yokku ci ne njiitu réew mi Macky Sall nangu na li mu yokku li mu membre yi war a piloter dialogue bi ndax dafa nar a amal yeneen ñetti commission di yeesal doxalinu état bi xeex lépp lu jëm ci ger ak bi ñu jagleel bokk moomeel yi mu dooleeku ci yeneen juróomi commission yi ak tamit gën a fësal jigéen yi nga xamante ni dañoo néewoon lool ci dialogue bi coow li amoon démb moo tax ñu dàkk science bi ba suba ci alxamis bi jajeuf Aminata Ba ci yoyu le leral ñu wax kon ci l'intersyndicale biomb ëmb kat yi nek ci collectivité locale yi nak nag janloog taskatu xibaar yi lën xeye tay ji ci suba ñu ko don amale kon ci direction de l'émergence urbain li ñu don fa wax nak modi kon préavis de grève bi ñu dugalo nak fan ca toll ak yeneen i mbir yi nga xam si ñu koy wajal ci jamono ji ñu jëm ñu tewlu ci wa ah, sen njit di ah, sidia ay kaddo a ngi ni denk na ko King FM waaw léegi intersyndical bi nga xam ne ñeenti syndical am moo décidé woote ndaje bi tey pour véritablement évaluer li nga xamante ne mooy plan d' parce que bi ñu koy lancé waxoon nañ leen ne bu ñu amul ndam dañuy dem grève mais yàlla dafa def bi ñu ko lancé njiit réew bi ci boppam si na décret bi nga xam moom moo ñu téyoo depuis ñetti ñaar euh, juróom-ñetti at signé na décret bi ministre bi aussi woote na ndaje conseil supérieur mi nga te ne fonction publique moom moo ko jiite pour ñu adopté feuille de bu bees. décret bi mooy organigramme type collectivité local yi maanaam collectivité locale bu nekk dafa a am nu muy doxee maanaam ñoo xam service yi naka la ñuy fonctionner ñu xam kan mooy nekk fa ñu béy politique bi ci biir mairie yi. ah ak département yi. mairie yi institution lañu ah dañu war a fonctionner normalement. xam ku nekk sa place fan la ak fii la mais mënuñu dajale ay nit rek suba ba ngoon duñu def dara ñu toog di xoole loolu moom day jeex loolu moo tax décret bu ñu ko doon xaaral ni parce que dafa am solo lool ci ñun ñun liggéeykat yi donc comme signé nañ ko léegi léegi yéegu ma ne fonction publique commencé na extra loolu moo tax tournée bi dafa am solo parce que dinañu xamal exécutif locaux yi léegi nag ñoom bu ñu mu nangul appliqué fonction publique bi incha allah intersyndicat lañu jàngal ak ñoom vraiment ñu xeex pour que évidemment parce que nag mairie du question politique rek ay maire folli ay maire mu nekkoon kàddu yi Sidiya Ndiaye nekk président CNTS ngeen di wéy di déglu mi di Culture ci rajo King FM di moo jot ba tegal juróom-benn simili.

juróomi nappkat yoo xam si ñu ngi fekk baax fële ca jéeli mbaam ñoom nag dañoo réer mëri ci biir géej gi waaye nag gaal gënu duggoon daan nañ koy seen fële ca diwaanu bi kan ca fekk sax benn doomu aadama la dafa ñàkk bakkanam ña ca des ba fii kenn gisagu leen tax tamit kon seen ay naataango di sàkku ci nguur gi ñu dimbali leen ngir ñu gis ñooñe ñu teewlu ci ñoom kon kenn ci ñoom di Abdou saar gannaaw jokkoom ak King FM dafa amoon euh, suñu mbokk yoo xam ne dañu demoon géej depuis yi après nag dañu jéeg saaba si yàgg gis ñu am ñu for gaal gi waaye buñ ko foree benn moo lan ci fekk mu ñàkk bakkanam waaye ñeneen ñi kenn gisu leen ki leen for nag moom mu ngi nekkoon Gàmbi Gàmbi la tëmbee bu ñu demee géej ay dix heures yooyu si bëccëg la gis gaal gi këppu après mu taf ko bu ñu ko yëkkatee nag fekk si benn mool waaye nag teer na ko Gàmbi waaye moo kenn xamul kan la ndax émission bi nga ko te bu ñu sañoon état bi dafa ñuy jàppale ñooñu ñu dimbali leen pour ñu xam kooku noonu kan la ndax instant bi seen ay waajur xamatuñu si lu ñu nekk juróom benn nit lañu capitaine bi mu ngi tudd Badiagne ak Baye Makoddu Diagne Lamine Ndiaye Seyir Diagne Adama Diop ak Malick Diop ñaar ñi ñoo bokk ndey ak baay yeneen ñaari tamit ñoo bokk ndey ak baay kenn ki seen doomu mag la keneen ki tamit seen benn mbokk la muy Lamine Ndiaye seen mbokk la moom ñoom ñëpp ñoo bokk benn dëkk ñoo ngi dëkk benn village bu naan Jël Mbaam Saint-Louis lañ dëkk ñoo ngi tëmbee woon nga faru waaw kenn xamul si lu nekk bu nu woote nanu waaye kenn jotu leen mu nekkoon kàddu yi Abdou Sarr mi sàkk ci nguurug Sénégal ñu dimbali leen kon ngir ñu mën a gis seen euh, naataangooy nappkat yooyee réer te ba fii kenn tegagu leen bët yegsi nañu ci reportage bi tey tontin la ñuy waxtaanee ñu gën koo xam ci natt nekk mbir moo xam si jigéen ñekk jeeg ji ñoo koy daal di amal fële ca banlieue bu Ndakaaru nag la ëppee ñoom naka dañ koy def ngir di fa denc seen ay koppar ba saa yu nu amee soxla rek ngir man ko caa fàcc gëstu bu yaatu la ci soxna Dior Mbodj def ngir saafara seen soxlay bopp te kenn du leen xamal soxna yi am nañu ay pexe ku ci mel ni ab sa jaaykatu ndekki la ah natt yi moom baax na loolu wax dëgg yàlla ndax ñun jigéen ñi natt yee ñuy jàppal ndax li ngay liggéey munoo koo denc ndax jaboot nga soxla yi bari li nga ci foraatu da ngay jël leen ni def sa njaboot leen ni nga daw def ko ca natt ba natt boobu boo ko teggee am nga sa boo mënoon a fat sëm néeg nga dem jënd ko def ko sëm néeg natt yi baax na lool waaye nag fi may condamné boroom natt yi loterie bi nañ koy jaar ci yoon ndax da ngay bokk ci natt nga ni diw man kat damay loterie nit ka di dundee yaakaar ngay seet sama yaama neex di ko teggil ka nga xam ne day natt normal bis bu ne muy dunda yaakaar te doo ko bu weesoo nattu xaalis jigéen ñi tamit dañuy faral di bokk ci natt yu ci mel ni avec dox daje yére wala ay ndab lépp ngir bu dara ne kët ni jonn ñu mën koo faj comme ni ñu ko meer ci loo di xamalee gis nga fi mu nekk nii jigéen ñi seen wàllu bopp ay jàmbaar lañu ndax xew yee tax mu tey ji xew day bette munoo tëb tëb tëb tëb ne yaa ngi dem jënd ji benn côté bu booy xew li nga war a teralaate sërëxal yi baax na comme nag tabaski yi loo dénkaane bu ñuy waaji tabaski ñu toj seen kees jox la sa xaalis la nga fa denc te natt bas yi baax na natt bool baax na natt natt daal bu jubee dimbale doomu aadama yi loolu moo si am rendement Fatou Sylla moom nee na daawul bokk nat waaye ba mu ko ñamee ba léegi dootu ko bàyyi ndax njariñ kese la ci gis waaw damay faral di bokk nat ndax nat yi dafa baax te day jàppale ni ndax moo gën comme ça tey ji boo bokkee nat doo yeeg da ngay jékki saa rek ñu ñëw teggi la boo ko joxee tamit doo par ndànk doo ko yëg waaye bu fekkee bokkoo nat da dem ba li nga soxla lu mel ni som yi ngay dugg di lijjan di leb maanaam di dugg ci yoo xam ne ëllëg ak sibi dañ dañ lay xamal léegi nag jéem a bokk ci natt yi nag moo gën moo tax nag léegi man damay bokk natt de natt nag soxna yu ñu dajeel ñépp a ko rafetlu ci kaw mu doon natt bu jub waaye liñ ñuy xamalit moo di bala ngaa bokk natt na fekk nga am ci looy yëngu waaye xëyoo gontoo natt bu ñëw nga daal di cay sóobu soo ko jaajëf Dior Mbodj ci gëstu bu yaatu bi nga ñu defal foofee ca banlieue bu Ndakaaru Pikine jàpp Kër Massar utali aéroport international Blaise Diagne midi moo fa jot ba tegal fukki simili ak benn. bàkk bobé kon xibaaru biti réew yi lay yeglé ak ñun ci studio bi Kumba Ba ma ngi lay nuyu. ma ngi lay fay Serigne Saliou nuyu na auditeur ak internet yu King FM. jukkib xibaaru biti réew yi ci dendo Afrique lan koy doore wax ci ah, semence bois ah, Imam Dicko mi nga xam si kon ma ngay wax ay bëgg-bëggam ci élection falum député yan fay wajal ci wéru août à atub 2019 kon la judd woon coordination des mouvements et associations et sympathisants de l'imam Mamoud Dicko lolu moy teki kon semence mom si bopam mo nekkon parrain terrain ba di bokk kon ci biñ doon lancer seen ay activité de coordination waye nak mu melni fim toy ni wax nañ seenu bëgg-bëgg niñ ko waxé walu politique dal lañu ñu di viser ba ci njeexitalu ay bëss biñu wéssu CMAS ci bopam daal di di tek ay banxasam ci juroom benni commune yi nga xamné ño nekk Bamako objectif bi kon fim mu ne nii na ci élection législative de élection faluk député ya fa wara am coordination bi nak jamono ji sax ay tournée la tambali di dem ci biir réew mi fofé ci Bamako te nag am nañu yéene lawal ko ba euh, dëkk ba yëpp daj. ñu utali lii bi wax kon ci diggante Abdel Fattah al-Sisi ak Recep Tayyip Erdogan. mu mel ni kon ab jaxasoo maanaam xeexoo bi tàmbaliwaat na diggante président bu réewu Turquie Recep Tayyip Erdogan naka noonu naataangoom bu Égypte di Abdel Fattah al-Sisi loolee nag nekk lu bees ndax ñaari chef d'état yi mosuñoo wane benn yoon ne neexoon nañ donte ne ci biir mbooloo lañ nekk dañuy wane ne daal dañuy xoolante en chien de faïence maanaam. am di wane ni daal ñoom ñaar seen diggante neexul ci weeru septembre sax ki nga xam ne mooy président bu Amérique di Donald Trump invité woon na leen ñoom ñaar ñooñu ngir ñu ñëw reerandoo ak moom ngir waajal assemblée général bu Nations Unies waaye nag Erdogan moom dafa ni rek mënta ñëw service bi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu kàddoom di service eh, cellule de communication wam ci lañ génnee woon kon ab communiqué daal di wax ni bu fekkente ne ñëwul nekkul ni dañoo am problème ñoom ak Donald Trump waaye nag teewaayu Al Sisi di eh, njiital réew bu Égypte mom mo len déranger kon mu melni Serigne Saliou guerre bi tambalé watna ci digënté ñaari njiitu réew yooyu. l'Amérique ca États-Unis lañi jéxalé jukki jukkib xibaaru biti réew yi wax ci njit le di Donald Trump ak ay mbiram mu melni ni tey lañ koy djébal Sénat ba. ndax procès am dafa war a kon talata ñaar fukki fan ak ben ci wéru janvier atum 2020 bi chef bi jité kon majorité ba ci démocrate yi chambre ba di Nancy Pelosi mom nak dafa organiser tey jii lay organiser kon fukki fan ak djuroom ci wéru janvier bi li nga xamni mom moy vote bi jëm ci ñu transmettre euh, ñi di euh, chambre haute ba li di article yi tuké ci acte d'accusation ba acte acte d'accusation nak Serigne Saliou moy fi nga xamni fa lañu ñu kon tuuma yi nga xamni mom mo moo nekk ci ndoddal Donald Trump euh, ci cadre destitution manam jëlé ko fa bi nga xam tambali won nañ ko ñom démocrate yi nag vote bu tay bi lu ama am solo la ndax nak Sénat ba mo wara décider ci Donald Trump ndax dinañ ko mëna top sukkandiku ci acte d'accusation ba kon fi tay ci États-Unis lañu ñuy taxaw ci xibaar yi soxal biti réew. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. mang nga gannaaw biti rew ci tàggat yaram la ñuy dalal ci studio bi papa ma jaxate sar Mangi ngi lay nuyu maa lay fay bu baax serigne Salif sek di nuyu bépp auditeur bu radio King FM mi ngi non walum basketball lañ koy ah, tambalé wax ci présidence bu Ligue 2 Dakar Samba gay mu melni ni ma andi ay la ay leeral ci li nga xamné mom lañu candidature bi mu déposer won ngir jité ko ah, Ligue bu Dakar bu basket mom dafa japp né candidature ah, lu valable la ay yenn ci rek moo ca daal di am waaye gën na ne daanu ko valider ci ginnaaw loolu moom Samba Gueye ma ngay leeral la mu fas yéenee def bu ñu ko tabee ci bopp ligue bu ndakaaru bu basketball ñu teewlu ay kàddoom une notification officielle bu wax mo que je kat sama candidature baaxul bi ñu déggee affaire bi dem nañ vers l'information liñ wax moy que sama demande d'affiliation amul signature président section basket union sportive de Wakam. mais xam nga Wakam dafa am une spécificité Nous, que ne ñun ben club omnisport lañ avec sept sections suñuy document officiel le président de l'association, le président bu mag bi moom signé de façon vraiment serein dem na def sama recours pour que ñu rétablir dans mes droits parce que euh, le club fonctionne comme ça Il y a des grands clubs yo xamante xamante omnisport la section c'est pour gérer doxal rek euh, les aspects opérationnels ma jàpp rek que ne peut-être erreur la wala ñaka xam mais li wóor te wóor mooy que ne sama candidature mom baxna man dama nekkoon nit boo xamante dama bëgg défi dama dem seeti club yi nga xamantene ñom ñoo nekk dans la région de Dakar ñu défar suñu programme ensemble programme bo xamantene ni dama duma maa ko defar yónnee ko ñu xamne dañ bëgg def dañ bëgg développer affaire bi ci juroomi axe muy axe formation axe développement mini basket axe sécurité dans les stades et sécurité assurance des acteurs parce que ñun ñu bari ñu di joué amuñu police d'assurance motax moo ñu ne bu ñëwé ci si loolu noonu on faral dañu nañ def suñu kemt lay kattan pour que ñu am benn assurance bo xamantene day day prévoir accident wu xalé yi nga xamantene ne ñu en particulier la petite catégorie formation bi mom moy la formation des acteurs moy euh, entraîneur yi nga xamantene ñu ma jàngal ñu defal ay initiateur ak administratif yi parce que dañu bëgg ñom nenañ autant liñ ñu daan def moy di rencontrer à la ligue tout le temps di waxtaan di waxtaan ci dossier au basket bi donc loolu lañ bëgg waat vraiment ak arbitre aussi formé arbitre départemental pour le département les départements et la région de Dakar mini basket aussi dañ dañ koy defaraat mais mënuloo wax développement te defaraloo benn D2 bu attractif. mu ngoog Samba Gueye bokk ci ñi nga xam ne dañuy yóotu euh, seezuk euh, Ibrahim Diagne mi nga xam ne ginnaaw ñeenti at bi mu jiitee lii di ligue bu Dakar bu basket dafa euh, daal di jël dogal daal di ca rocceeku ci bopp ba muy dogal goo xam ne tax na ba ñu war organiser yooyee élection. ñu bayyi basket wax ci walum football ak éliminatoire kan jëm ci walum jigen ñi gaynde yu Sénégal tay ji dinañ amal ab euh, jongante xarito ak jongante xarito gu wara dox seen digënté ak wa jambar bu sali di équipe bo xamné ne ay góor ci nek euh, club bobé nek ci Ligue 1 bu Sénégal lañ ci nam nak ci jongante gogu moy fexé ba ñom gaynde jigen yi mëna dal di rek euh, wajal seen bop ci défi physique bi nga xamné ne josu liberia yi fas nañu ko dal di jëm ak ñom wa liberia yi nga xamné ne eh, dañoo dëgër loolu am kattan moo tax ñu dekk jongante xarito googe ak góoru jàmbaar yu sali yi fàttali ne Sénégal ak Libéria daañu daje ñaari yoon ci weeru février gi ñu jëm eh, ci eh, éliminatoire CAN yu jigéen ñi nga xam ne war nañu ko amal ci atum 2020 gi ñu wax kon ba tey ci wàllum football CAN bi war a xew fële ca Cameroun atum 2021 tey jii la ñuy xam kon na jongante war a demee jongante yi kañ lay tàmbali ak kañ la war a jeex ci la koy xam ginnaaw après ñoo état bu Cameroun confédération africaine bu football ak euh, comité d'organisation bu coupe d'Afrique bi war nañu ko euh, sekk muy tomber nak ak njeexitalu euh, tukik nemeko gi nga xam ne njiital confédération africaine bu football di kuréel gi ngànk football bi ci continent bu Afrique di Ahmad Ahmad Don amal Cameroun ngir rek xol ndax Cameroun stadium Yak infrastructure manam maanaam kai yi lépp yemb na ngir championnat d'Afrique des nations 2020 Manam ab jongante équipe nationale euh, joueurs nek fi ci Afrique ñoo jonganté ak euh, Coupe d'Afrique des Nations 2021 ñaar yépp nak euh, réewup Samuel eto moko wara dalal ñu wara joxé nak li nga xamné moy date bi né la Coupe d'Afrique bi normalement wéru juin juillet la waron am waaye nak jafe-jafe ci walum calendrier am ba ñu bëri njott ne ko moy daanu ko delloo ci waat ci janvier ak wéru février. ñu wax ci walum football ba tey jeexale ko bile yoon ci tougal luñ fa mëna japp ci Ligue 1 bu euh, France ñetti match yu ñuy dabu la ñu jàpp tey jii bu juróom benn waxtu ci ngoon jotee Amiens euh, bu Moussa Konaté dina euh, dalal Reims bu ñeel dabu dabu fukk ak juróom benneeli bëccëg bi ci fukk ak ñaareeli bëccëg bi nag ba tey ci juróom waxtu ci ngoon Nîmes dina dalal Rennes bu Mbaye-Niang bu vingt jotee maanaam juróom waxtu ci guddi Monaco dina dalal Paris saint muy dabuk fukk ak juróomeeli bëccëg bi doon nag ñaareelu jongante ci diiruk ñeent ñeenti fan diggante Monaco ak Paris Saint-Germain mi nga xam ne dimanche daje woon nañu ca Parc des Princes ñu témbo woon ku nekk ñett nga dugaloon sa morom ca Italie huitième de finale coupe nationale yi ñu ngay woy niki tey jii bu ñaari waxtu ci ngoon jotee Fiorentina dina dalal Atalanta Bergame bu juróomi waxtu jotee AC Milan dina tase ak Spal bu juróom ñaari waxtu toftale ñeent fukki simili ak juróom Juventus Turin dina tase ak Udinese ëllëg lañu koy jeexal Naples bu Kalidou Koulibaly Lazio ak Inter Milan qualifié nañu ci quart de finale yi ñu jeexalee ko Serigne Saliou ak Coupe d'Angleterre FA Cup ñetteeri tour euh, dabuwaat maanaam replay euh, tey Manchester United dina dalal Wolverhampton ci guddi démb Newcastle ak Tottenham ñoom dañoo mujj qualifié euh, ci li nga xam ne moom mooy tour ba ca topp match bi waroon dox diggante Tranmere ak Watford bu Ismaïla Sarr moom dana ko dàq ba jëmmi jamono Serigne Saliou foofu la ñu yem tey ci xibaaru tàggat yaram. Jaxate Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faramfàcce fàcce gi xibaaru caada yu wér te dañ koy tàmbalee wax ci livre bu ñu doon fesal ni ki démb ci jumaa yi Masaalikul Jinaan livre boobee nag ñi ngi ko duppee Bamba xam bëgg nekk livre boo xam si day wax ci jaar-jaar yi Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul ki ko xaatim nag mi ngi tudd Serigne Fallou Mbacké ñu teewlu ci noonu ñenn ñoo xam si ñëwoon nañ teeye teewee ndaje moo nga xam si ci lañ doon euh, fesal li la di livre bi sëñ Abdou daan wax naan ak sëñ Abdou Khadre euh, soo mosee wax ci seen kanam ne diw dafa noonu sëñ Tuubaa wala daf koo bañ wala dañ naan la déedéet dañ koo xamul ku xam sëñ Tuubaa bëgg ko ndax za nafarin bi la dararin moom ku am ëmbal ñëpp njariñ la ku ko xam rek bëgg ko loolu moo tax ñu tànn tur bi ku am nag xarañte bu wér ci def ko ci image bande dessinée xam nga boo nee bande dessinée rek sa xel dafay dem ci xale yi kon wane na ni livre yi kat ñu ngi koy jéem a am comme cible xale yi ñi gën a jeune ku nekk ci biir euh, livre bi moom la ñu wax maam góor moom ak ay sëtam hmm, ñu ñu ñu toog mu leen di nettali histoire Serigne Touba loolu bokk suñu cosaan nga xam ne bu njëkk danga daan gis maam yi seen sët yi wët leen ñu leen di léebal di leen raconter di leen yar. mu nekkoon kàddu yoo xam si dañuy dellu si waat ci livre bi nu fesal démb kon ñu ngi ko duppee Bamba xam ma bëgg ñu wax ba tey kon ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan ci midi culture wax ci leneen ak keneen mu di kon Habib moom nag Akon 2 lañ ko daan woowe ci jëmmi jamono lu bees nag la daal di génnee moom sax moo nekk singalam bu njëkk mu duppee ko nobante tase nag Papa Ma Jaxate Saar béy bi li tax ma taamu la mooy danga jonge lool dégg daaj ba tax na ma lay feccal nobante mooy single bi nga xam ne moom la ab Habib jël dogal tàmbalee carrière ci seen musical bi muy way bu mu jagleel waaye aji bëggante yi dama ci delloo njukkal en tant que jigéen ak jëkkëram parce que jigéen bu dee sëy war nay delloo njukkal jëkkëram jëkkëram tamit war nay delloo njukkal jabaram ma wax ci nobante xam nga ne su ma nee dara gënul neex nga bëgg ki bëgg dafay gën a neex mbëggeel gi doon la dëggu moo ne tey ci atum 2005 la tàmbale yëngatu ci wàllum jamono yooyu diwaanu Touba. am ci amour tamit trop trop trop nekk ci di ko suivre euh, mu jaraloon ko lu ne. lu bari loo xam ne dafa bàyyi woon lépp sacrifice ko ndax musique eh, ma nekkoon Touba ci daara ji boobu maa ngi jàng mais foo ma fekk damay wayantu di bind ay texte ah ba ñëpp fu ma tourné dañuy wax naan diw diw diw diw bu ñu amee ay programme comme lu mel ne ay xew man maa fa doon dem di fa woy bu ñu organiser dara man maay dem foofu nekk seen centre di leen woyal laata mu jël dogal jël turam dëgg di ko jëfandikoo ni turu artistam Habib Akon 2 la doon ay kon dafa nekk koo xam ne dama ko yàgg bëgg doon def jamono boobu rajo Ukman yàgg yooyu moo xewoon su ma daan wàcc man ak sama xarit yi kii day jël pakot euh, yi kii jël 50 cent man ma jël Akon mais bi ma koy bëgg sax man xaw ma ne woon sénégalais la di jël son di ko répété pour mokkal ko ma décidé pour changer ko parce que ku nekk ñaan nga yàlla am sa carrière bopp parce que Akon Alioune Badara tudd mais bi mu ñëwee tuddee boppam Akon am na continuité ba yàlla may ko tey li mu am tey ci musique indi sama tur liggéey ci musique loo xam ne di nit ñi dinañ ma xam ci sama tur ak liggéey bi may def. tey jii Habib benn mbëbët rek la bëgg sottil muy fexe boo fësal baatam fépp ci àdduna bi mu jàpp ne it fenn rek la loolee mën a jaar muy label Prince Art mi mu jàpp ne ñoom képp ñoo mën a fësal talentam ci kanamu àdduna bi. jaajëf Papa Madiakhaté Sarr Midi Culture ñu jàll ci bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamal lekk Aminata Sophie Dieye moom nag ab bindkat la woon nekkub romancière nekkub dramaturge nekkub scénariste nekk tamit ab taskatu xibaar livre bu siiw bile ñu mu duppee woon nday euh, taxawaalu moom moo ko bindoon te mu fësaloon ko atum 2004 bind na tamit ci série bi siiw bile di euh, Idole euh, fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum 2016 ci la génn àdduna fii nii ci diwaanu Ndakaaru gannaaw jàngoro ju yàgg joo xam si da ko sonaloon Fatou romancière scénariste la itam na série bi di idole mom mo joxe idée générale bi comédienne itam nek dramaturge bindkat journaliste Aminata Sophie Dieye mo bolé juróom ben activité yi dan ko def ci anam bu muccu ayib ab génie le won ci métier art bi ci atum 2005 le bind pièce bi mu consulat général ndem Marie Lucio Mat ma Con Borom këram moo mise en scène ba ñu daal di koy jouer ci ay scène yu bari France mu actrice Donna Sarjoué, Nyari film ci court métrage bi Petite vendeuse de soleil ci atum 1999 bu Djibril Diop Basili et le Baobab ci atum 2006 Lillepou, lepp di ñaari film yu Bok, série idolbi, bi tam ci scénariste la Bok, mu am solo. L'ensemble de la série ce soir sans la présence de Aminata qui est euh, Ndeye Taxawalou que vous avez aimé que vous avez lu le quotidien de serviteur. Elle a travaillé avec nous dans cette série. Elle a été euh, l'une des premières à rejoindre dans les scénarios. Elle fait partie des scénaristes de cette euh, série. bindkat bi fësal na téere yu bari bi si mel ni nday taxawaalu ay récits yu mu def Diko ko fësal ca lobs sax pousser lecteur yu bari ñu journal bi dan am récit nday samedi bu ma jot ba roman bu bi la nuit est tombée sur Dakar ci 2004 ak Agenen. ak yeneen bindkat bi taskatu xibaar dramaturge bi bi mu lakkee ñeent fukki at ak ñaax la faatu yamook bésu 18 février ci atum 2016 jaajëf Fatou Sow am solo midi culture ñu jàll ci gan gi. midi culture ganu xibaar ganu xibaar yi tey ñu ciy dalal Koumbi Sora moom nag ab woykat la boo xam si mi ngi fekk baax ci nii ci diwaanu Wakaam daal dinañ def nag formation jëmale ko ci wàllu musique déyrub ñeenti at gannaaw ba ci la dal di soobu ci mbir mi moom nag uh, mi ngi gën a ay mbiram ci wàllum afro acoustique laaj ak tontu dox na digganteem ak Mamadou Sow. Koumbi Sora ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi nuyu auditrice yëpp yi déglu King FM ak auditeurs yi. gannaaw boo ñu faram fàccelee naka nga fentee sa tur wi ndax mën nga ñu wax tuuti si sa jaar jaar. Kumbis Sora maanaam mooy Kumba Sissoko ci état civil Kumba ñu naan la Kumbis léegi Sora ça tey bu fekkee ci sant danga naan Guèye Ndiora nga ne Ndiaye Diatta wala Jooba Jubba mais ñun dañ ñu naan si Sissoko Sora ma gis ne lu original la looloo tax ma def Kumbis Sora. juddoo wakaam yaroo wakaam defee jàngam yëpp foofu après dugg ci musique bi ñëw de la culture defee fii sama formation musicale pendant quatre ans. kon mën nañ jàpp ni yaa ngi si milieu bi si lu ëpp ñeenti at. lu tax nga tàmmu genre musical bi ngay def tey. moom la ñu naan afro mandeng moom moo mën a jàppale pour que ma yóbbu culture Sénégal euh, fu ma neex. ci seen yu mag yi. yi nga xam ne moo tax ñu naan euh, culture ak musique moo tax ma taamu. style bi ma taamu voilà. ndax jot nga def album. génnee naa album yàgg une année maintenant bu tuddoon Bandirabe Bandirabe yi dinaan famille. yàlla mi ngi ñuy dimbale ñu ngi génn di représenter Sénégal rêve bu mag bi mooy génn nag réellement bokk ci événement yi gën a mag ci musique yi nga xam ne dañuy ànd ak drapeau réew mi voilà dem représenter Sénégal. Kumbis maa ngi lay jaajëfal. jërëjëf merci beaucoup. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck dialogue national bi nu door nii démb ci talaata ji xuloo national la mujje ndax teesante xaxarante bi fa amoon taxit daanaka yéene kaay nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di wax nanu mujje ubbil source a journal bi ne dialogue national bi boo moytuwul ci féewaloo national lay mujje la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne démb ci seen réunion officielle bu njëkk bi nu doon amal la fa xewoon na koo duppe lu nekk ba yi ñeen fukki doomu aadama yi nu yokk ci comité de pilotage bi ndax nag Famara Ibrahima Sagna li mu leen xamal moo di ne yokkute googee ci moom nday mbili gi la jóge yéenekaay bi ne Famara Ibrahima Sagna yamul foofu ndax nag andi nay tontu ci kàddu yu fi Mamadou Lamine Diallo bu tekki yëkkati woon doon wax ne am na budget fukki million bu nu jébbal dialogue national bi ñu koy jëfandikoo bés bu yàlla sàkk Famara Ibrahima Sagna ne loolee nekkul dëgg te sax moom la bëgg l'observateur ne Famara Ibrahima Sagna la def démb ne Famara Ibrahima Sagna dafa jaar ci mboy gi démb le quotidien mel ni koy wax waa l'observateur naan leen Famara Ibrahima Sagna waa ku jégi ñoo ko dugal ci mboy gi les éco dëgg la ndax naka démb lañu gis ca dialogue national ba tàggasante national ak téesante national la gën a nirool enquête yéene ne la ko waral moo di kenn dégluwul woon sa morom ñëpp doon wax ku nekk di kaas réew métt bëri nay secteur yu dëkkey kaas tax goo xam ne foo laal muy metti ndax yaram wu nagam journal bi ne la tax ñu ko te itam te tax ñu war ko di mu digg doomu mi ci ab grève la nu jëm wàllum wér-gi-yaram metta am nay jafe-jafe courant bi moom kenn waxaalewu ko mareyeur bi li ko dale àllarbay tey ji nee nan duñu fa sexance ko moromam te dinañ ko amal fii ba aljuma yéenekaay bi ne lii rekk doy na sëkk ngir ñu war a amal ndëpp national ci mim réew dàmboo ci bokk ci G20 ne démb dog nañ seeni cours bi fukki waxtu ci suba jotee ba noppeet waxtaan nañ ci seen biir ba ràngoo waat seen mbubbi xare secrétaire général u CUSEMS authentique bi ne la ko waral nag moo di nguur gi dalee na nawloo wut dara la deful ci li nu xaati moo na ko ñoom boole ca nag nag yoreel leen koppar yoo xam ne kenn xamul na mu toll tàmbooj ne jéego yi président Macky Sall war a njëkk a jël moo di tekki ndombal tànkul Mamadou Talla di jëwriñ gi sàllo wàllum njàng mu suufe meg mu digg dóomu mi ndax nag dàmbooj nee na Mamadou Talla dafa tële leneen li tële ba ay jalti-jalti am ca moo di ci secteuru napp gi yéenekaay bi ne mareyeur yi grèvum ñetti fan lanu tàmbali tey ci àllarba ji te li leen metti moo di nanuy peese jën ya ca Abdoulaye waat di yàqu na sabab li moo di góor gi ràngoo waat na mbubbi xarem fas yéenee guerre ak nguur gi fi nekk Les Échos góor gi national kay génn na ca front national de résistance bi journal bi ne li bi jàpp ba tax mu def lu ni mel moo di gaa yi fare ci kujje gi dañuy dégganteeku nguur gi fi nekk Matar Sorang ci laas yéene kaay ne loolee góor gi wax waru ko wax ndax nag moom lañ njëkk seen mu sol trois morceaux di daagu ca palais ba di waxanteeg président Macky Sall te kenn lijjantiwul lanu doon waxante ki nu war a lijjanti ay mbiram kay moo di ndaw si nuy woowee ràngu ba tax ay mbiram l'observateur xëy na di ci wax ci page 14 am rangu ci ñi ko xamul yéenekaay Futurs Médias bi nee na moo di ndaw si si doon amal ab soirée jamono yi ni weesu te entrée ba di 200000 di ñeen fukki junni ci xaalisub CFA waaye nag la ca gën a yéeme moo di ndaw si la mu sol sorewul ak def yaramu neen Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ne ndaw si bu bàyyiwul la muy sol dinañ ko yóbbu kalaame ko ca brigade des mœurs rangu ne baatu caga bi nu koy wax bañu ko ndax nag mbir la moo xam ne dafa jiitub ju doom la muy sol nag li ca ndaw si xamle moo di ku mu neexul nga muur say bët te bañ koo xool mu nekkoon kon aslëf ci li yëglekaay yi xëyee subaak tey musique la ñuy jeexale jotaayu Midi Culture tey Aliou Mbaye Nder ak groupe bi bi di seet sima lañ leen di ah, digtal ci woy bi nga xam si kon moo di ah, courage mu génne ko ngir gën a ñaax ndaw yi ñu gën a góorgóorlu ñu teewlu noonu mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci euh, midi culture di jaajafal bu baax a baax ñu doon may nopp ci 99 point 4 ñu doon topp ci 3w point king fm point sn cant ak ngërëm ñel na bu baax a baax euh, Kader Lo Abdoul Xaadar mi fare woon ci euh, machine bi Serigne Saliou sekk nekkoon ci kaddu gi production Lamine Ndiaye digital Yacine Pouy léegi-léegi kon alaaji Baye Cheikh mooy ñëw wóoyal king feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation midi culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg